ci ñaari baat a tawfiq wal xislaan tawxiid lu nekk la noxoon ci yàlla ak meloom tey nag jëf yooyu muy jëf ci jaam yi ci bind gu mu leen bind noonu ci jaayiz li xam daga na ci yàlla mu def ko tawfiq mooy firi dëppale ku ko soob ci njub yoonu aljanna wal xislaan mooy gécceel bàyyi jaam bi muy tañax tañaxi ak cheytaan yoonu sofaan loolu moo tax mu ni muwaffiqun liman araada an yasil liman araada bu'dahu subhaanahu wa taala muwaffiqun aji dëppale la liman araada ku soob andi seen mu àgg ci yërmandeem ak ci mbëgg cofeelam wa itam wa xaasilun aj gécceel la liman araada ku ko soob buudu ak sore foofu ne mu bàyyi ko ci yoonu seytaan kon lu mu bëgg wax fii muwafiqun ñu ngi ko jël tawfiq nag ci luxa mooy taalif taalif mooy dajale diggante ay mbir mu doon kon loolu mooy tawfiq jaam bi mu dajale ko ak yërmande kooku ci wàllu luxa mu charan ci tawxid tawfiq mu ni xalqu qudra xalqu qudrati taa fil abd yàlla bind kàttanu topp yàlla ci jàmm bi mu jëpp dëppale wa tashiilu sabilil xayri yombal yoonu yiw ci jàmm bi koy def wa ila taa lu koy woo jëm ci topp yàlla lan la bëgg a wax ay almaylu nafsaani ila taa bind ci moom su jëmi jaam bi e, jëm ci topp yàlla tabaaraka wa taala nee na loolu mooy tawfiq bind na ci moom kàttanu topp yàlla yombal na ci moom yoonu yiw yu jëm ci yàlla tabaraka wa taala yombal na si moom yoon wu woote jëm ci topp ci bakkanam waaye lan mooy xalqu qudra lan mooy qudratu taa kàttanu topp mu ni salaamatul asbaab muccub yoon ya nga xam ne moo jëm ci topp muy saba yi wal aala jox ko njumtuwaay yu mu topp yàlla loolu mooy xudru taa waaye lan mooy asbaab asbaab nee na al ashyaa allati takunu xaamila al fiil fii ci tawxiid ci tawfiq ñu ko déglu baax saba yu moo di mbir yoo xam ni dana jox nit ki kàttan mu jëm ci def loolu ñu ko sant loolu esbab waaye lan mooy aala mun jumtuwaay mooy lan aala moom al ashyaa allati bi biha al iaana alal fiali jumtuwaay fii mooy mbir yoo xam ni dana am jaam ci mbir yooyu ndimmaniku ba man def loolu ñu ko sant masalan fal maawu lazi yatawaddau bihi min al asbaab al urfiya lissala ndox mi ñu jàppee nee na sabab la ci mbaax ci mën a julli ndax julli yàlla daf ko ci laab ndox moo yoonu laab wala aadaa allati tuxaawilu biha taa alaatun fii daf bëgg teqale sabab ak ala ndox maa ngi noonu yoon la ci jëm laab métier yi muy tànk ndox mi di ci laab nen loolu mooy njumtuwaay wa ala hada tafsir ci bii firi ni lii moo di tawfiq xarajal kaafiru yéeféer génn na xeer mu fax yéeféer yàlla dëppalewu ko yoon wu jëm ci àgg ci suñu borom fay now lay sama faqan amul dëppale amul allah taala xalaqa fii qudrat taa kàttan gi ni moom la nit ki topp yàlla ni ko julit amee noonu la ko yéefar amee waaye waaye amul tawfiq fii lan la bëgg wax génn nuñ yéefar ni amul tawfiq ci yàlla waxtisaarum ala ixraajil kaafir yaqtadi an al mumin al aasi muwafaq fii wax juróy ngi ni yéefar rek lu ñu génne ci tawfiq nee yàlla dëppaliwu ko waaye ñu ne mu jullit nag ci xaal bu mooy yàlla xanaa kon génn na nee na déedéet ñu ngi ci biir moo faq la nee na loolu mooy dëgg ndax julit am na yoon boo xam ni day jéggalu yàlla jéggal ko donte am nañu nii nit ki jamono bu muy mooy yàlla léegi nee na maxzul la ñu ko gécceel dëppal wuñ ko ndax luñ ni ku ñu dëppale ku yàlla jàppale dëppal doo mooy ya loolu la wax ni ñi nga xam duñ ni képp koo xam ne duñ ko dëppal du mooy yàlla loolu la ñu bëgg wax ne kon nit ki fu muy mooy yàlla foofu maxsul la salaa salaam junj na ko la yasni zani xiina yasni wa mumin bakkaar mag yu bare junj na ko ni képp ku koy def jamono boobu ngëm nekkatul ci ci xolam moom noonu ndax ku ñu dëppale na ni ki yàlla jàppale nee na la qudrata lahu ala masiya ci goog jàppale nee na amul kàttanu mooy yàlla boobu boobaa kon nit képp jamono bu muy mooy yàlla yàlla jàppalu ci loolu loolu moo tax mu ne kama anal maxsul laa yutiiru ki nga xam ni kii yàlla daf ko gécceel du mën topp yàlla ndax daf ko bay isla qudratu lahu ala taan si jamono boobu amul kattan gumu mu toppe fii nag nee na lak an taqul al muwaffiqu la yasi min xaysu ma wafaq ma wufiqa fii foofu juree la ki yàlla dëppale nee na du mooy ci la mu ko dëppale waaw loolu wér la wal maxsul kuñ gecceel moom itam la yutiyu min xaysu ma xudila fii ku yàlla bàyyi ci lu mu la bàyyi doo ci mën topp yàlla kon ma nga doon ci wàllu xislaan gecceel ci wàllu tawfiq mbir la ci li nga xam bindaafon bi yàlla bind ci boppam def ci moom la ko neex waaye bu ñu delloo ci sunna kullu bni aadama xataa daa ko gis képp kuy doomu aadama day juum wala bar na juumkat la ci njuum la dëkk wa xayru xataayin tawaabun fii dafa bëgg a wax ni ku mën doon ci tawféex du tee itam mooy yàlla ngi la taxaw e tawfiix boobu nag buñ ko déggee fii bu mooyee rek yàlla may na ko possibilité mu tuub delluwaat ci suñu borom tabaaraka wa taala nekk ci tawfiix ba kon nit mu noonu si tawfiix waxuñu fii ci tawfiix ni yàlla jaara yonente alayhi salaam bokkul ak nu mu jaar jullit ñi ci yoon ci tawfiq ndax yonent yi maasum lañ maasum bi maanaam duñ am bàkkaar moo ci gën a leer moo xam dañu ko dul def wala ku ci defee yàlla jégal duñ ko bind loolu moo tax lenn ci waykat yi daa gis ku naan ku demee ne ibnu Fard man zallasi ma saqat wa man lawul xusna faqat fi day laaj ci wàllu tawfiq kan mooy koo xam ne mas def lu ñaw mukk kalla laaj <coughs> bu rëy la wa man lawul xusna faqat kan mu am tuyaaba kese kese ju raxul bakkaar ci wàllu am na mag ñu ni am na haatif bu ko tontu muhammadul haadi lazi alay jibril habat nee na lii nga laaj bokk na ci ñi ko am sallallahu alayhi wa sallam mi jibril wàcce alquran isma isma bi maanaa duñ ñoom yonent duñu yóbbaale bàkkaar làqira kon ñooñu yàlla dëppale na leen ci cofeelam googu ak yërmandeem ga julli ñi itam dañu def bàkkaar waaye itam yàlla dana leen jéggal suñu boroom nga noonu muwaffiqun liman araada an yasil mooy dëppale képp ku ko soob mu àgg ci yërmandeem ak ngërëmam ak cofeelam kooku mu suñu borom tabaaraka wa taala mu bëgg wax yàlla tabaaraka wa mooy dëppale jëmm ju joo xam ni soob na ko mu àgg ci ngërëmam mu àgg ci cofeelam kooku mooy suñu borom julli ñaa ngi noonu ci tawfiq yàlla jàppal na leen def leen julit ñu tënku ci farataki sunna di moytu bàkkaar gannaaw ngëm gu mat sëkk loolooy tawfiq wan leen yoon wu ñu jaar ba àgg ci yàlla tabaraka wa taala waaye itam wa xaasilun liman araada boodahu ku wax ci tawfiq danga wax ci xislaan nee naa géccee la ku ko soob ci mu sorel ko da koy sorel ñun yàlla mu jegeñal nu ñun yàlla mu def nu jullit waaye lan mooy xisyaan gannaaw bu nu xamee tawfiq alxisyaan nee na maanaawu tarku nusra wal iaana bàyyi dimbali jaam bi loolooy xislaan te mën ko dimbali yàlla mën a dimbali ñëpp bu ko sooboon kenn du des gannaaw waaye dafa am ñu mu bàyyi kooku xislaan ci luxa wa charan wàllu tawxid xislaan xalqul masiya bind mooy yàlla la abdi si jàmm mooy sofaanu loolu tuddoon tawfiq ndax tawfiq dafa bindoon topp yàlla ci jàmm kii nag mu bind mooy yàlla ci jàmm wa daaya ilayha ak yi woo woote jëm ci mu yàlla mu bind ko si jàmm bi kooku xisdaan la gécceel ñu ko firi aw xalqu qudrati masiya wala mu bind kàttanu mu yàlla ci jàmm bi comme niñ ko firi woon ci tawfiq kan la ko def li araada boolaw képp ku mu bëgg soreel day bind si jëmm jooju mooy yàlla bind si jëmm jooju kàttanu mooy yàlla nga xam ne ko mën def bu baax te du ci sax xam ni mi ngi ko def du ko saf sax loolu moo di xiislaa lépp noonu dana ko def li la si araada bonda képp ku mu bëgg a soreel daf koy gàcceel mu soreel ko ci ngërëmam soreel ko ci cofeelam soreel ko ci yërmande yàlla nga noonu ci xislaan ak jaam yi boo gis la ëpp si jaam yi foofu la ñu dugg ndax yéefari ci ëpp ci biir jullit ñi booy seen ñi tudd muslim ni faax bari ci yépp xistaan day dugg wa munjizun man araada waadahu fii la la bëgg a wax nee na dana képp ku mu soob lu mu la déggal danga sa jot waala fi fil xayraat a nga noonu lépp lumu mu ko wax dana ko dana ko ko jox ëllëg ay mootin li lesi araada bi xayran dana jox ku mu nama ci yiw maa waala lu mu ko dal ala lisaani nabi sallallahu alayhi wa sallam ci li mu yonent bi wala mu yonent bu nekk ci xeetam dana leen jox lu mu leen waxoon digal ga nag fi kitaabi alquran indi na ko al aziz téere bi tedd bi lu mu digal jullit ñi mooy aljanna lu leen digal mooy yërmandeem sax na ci quran dañu si jot waaye nag fii wal muraadu bil waadi al mawul bii mooy la leen wax muy wax waada mooy daal yàlla digal na jullit ñi bil janna loolu la bëgg wax an allaha waada al muminina bil janna kon mu wax lay taxallaf charan qataan lépp yàlla mu wax ci dël du wute du dañ dalil ba li qawlihi taala waada allahi laa yuxlifu llahu waadahu alquran nango akthar min dalil deelu yàlla bu ma wax loolu fekk na da wax na leen ci mbiru aljanna ni yàlla deelam du dañ waxaat na inna allaha la yuxlifu lmiaad ay alwaad yàlla lépp lu mu la wax nee na dana ko def moo noonu ci deel kama qaalahu baalul mufassirin fii mbir la nee na falaw taxallafa itaa al muminina ma waadahum bii lasima al kadib wa safa wal xulf fii wax waxin mantiq yàlla li wax julli yi da leen ko defal da leen ko jox bu leen ko joxul woon nee na wax joo ci zahir day nekk wax joo xam ni du dëgg si nuñ ko mën waxe day nekk wax joo xam ni waxu ko dese moo ko wax ku manqué te nekk wuutil del fii ci wàllu mante mu ne wa lazim batil wa kazaq al malzum lazim mooy aji waral malzum mooy lañu waral fi waxin la wute waxo yàlla ak jëfam wuute gi dañ na kon del boobu itam eh, du dañ ma nga fa comme koy waxam lu wuute ak jëfam jeex na lépp lu wax jullit ñi loolu dana am ndax lan fal xulfu fii waadin naqsun wuuti del wàññente la fillahi taala mu xaal waxoon na ko ca ba nga jàngale tawxid nee na bépp melo wàññent jombe na ci yàlla fen wàññent la wax mu dañ wàññent la tu dal suñu borom tabaraka wa taala jomb na kon yajibu tanzihu lahi taala anhu yajibu kon war na fi bépp julit mu selal yàlla ci wuuteeg waxam ak jifam ci deel lu mu deel day am lu mu la wax ni dan la ko dex ci yiw danga nga si jot dara du ci manqué xasa muttafaqun alayhi inda jëmil usuliyin képp ku jàngale tawxid neen dëkk ñoom ñëpp dëpp nuñ ci nii yàlla lu wax julit ñi ci yiw dana nañu ci jot bu amal waid tëkku nag fii ci usul diin mbir mu yéeme la baatu waandam mooy ci yiw bu wax dana ko jox jullit wala dana ko jox jaam bu ko soob ko riwaandu waid mooy tëkku mbugal moomu ni dana ko def jaam bu def lii lii lii kookoy waid fii la ulama yu wax ni fa yeesu taxalluf fii mën na wute indal baadi ñeen nañ jàng usul diin nañ yàlla mën na tëkku bu mu soob ko mu jéggale ndax lan lenal xulfa fii la yuad naqsan wuute ci tekku kenn du ko jàppe wañent déedéet bal yu karaman ñu ko jàppe tab yum bi buñu bu tagge ki ko def kama yusiru lahu qawlu shaair wa inni isa awaadtuhu awaadtuhu la muxlifun ihaadi wa munjisun mawidi fi waxin la ci jàngale tawxid fii ci wàllu usul diin ci diggante wuute dël ak wuute tëkku nee na bokkul même xiikam yi nga xam ni jàng nañu ko ci shooraaw yi daa gis ku naan wa inni man isa aw attu ba ma tëkkoo aw wala ma dël def na ñaar yëpp tëkku na noonam dël na soppeem nee lan lay def nee na la muxlifun iyaadi lépp la ma tëkku danaa danaa ko baax dana wuute sama tëkku dana wuute maanaam la ma tëkkoon mën naa ko bañ def waaye nag wa mun gisun mawidi lépp la ma dëlee danaa ko def kii la ci wàllu usulu diin bu ñëwee ci suñu borom tabaaraka wa taala lépp lu mu la dël dañ la ko jox mais nag tëkku jaam jaam boobu bu mu mujj yërmandem ñëw mu def ci xoolu jaam boobu yiw jaam bàyyi loolu mu doon def tuub bu doon yéeféer mu bàyyi kéeféer ga dugg ci lislaam kooku tëkk mu tëkkoon yéeféer ci jamono boobu yéeféer la loolu mën naa dañ ci du wàññeent loolu moo tax mu ni wuute bi mu wuute wuuteeg ci mën a tëkku du wàññent ci yàlla tabaaraka wa taala bay e ñu naan wuute gi néew diw lu ñoon dana ko duma dumawu ko maanaam wax ju wuuteeg jëf la neen am ko àggul foofu jamono bu mu koy tëkku bokkul ak jamono bu mu koy jéggal waaye fii am na lu xew wa qad ictarada jawaasa taxallufi lwaid bi lusuumi mafsada wala mafasid maanaam wa qad ictarada gaaraleef na jawaasu taxalluful waid daganu bu ñu daganalee yàlla bu tëkku du def loolu mu tëkku woon am nañu ni yàq yu bare mën na see juddu fi xabarihi taala ci wax yàlla ji mu wax danaa def nangam nee na ñaare loolu di tëkkuti defu ko nee na mën naa yàq fii ci wàllu tawxiid yàq gu demee nan waqad qaama al ijmaau ala tanzih xabarihi taala ani kasib ijmaa la wax ñëpp ñu jàngale tawxiid wax nuñ ni waxu yàlla fenn ci dugg waa fii lan la bëgg wax yàlla bu ne dana duma jaam bii def lii jégal ko ñun yàq da ci am benn ngoo fen da ci am wa minha tabdilu qawl yàq yi am na ci benn yàq boo xam ñu ngi ko tuddee tabdiilu xawli wécceeg jëf lu mu waxoon wax leneen lu mu waxoon ne moom lay def def leneen neen koo mën na ci am te suñu borom wax na ni mooy baddalul la dayya lépp lu mu wax tuuti ñaara ko ko neen kon yàq wa minha tajwiizu adami xuluudil kufaar fi naar yàq yi seexew ci wax ji jéggal koo xam ne ki newoon dañ ko duma nee na kon dañu si daganale yéefar yi bu ñu dëggee sawara mën nañu génn wa xilaafu maqaamat alayhi adilla samiya qatiya ci génnu yéefar sawara bokkul ak li fi alxuraan indi bu duggee du ku dee ci kéefeer bu déggee sawar du génn nga noonu man yasillaha wa rasula fa inna lahu naara jahannam fa inna lahu naara jahannam xaalidina fi abadan abadan la wax képp ku mooy yàlla mooy yonentaam nee na eh, sawara ñeel na ko bu tudd day beel ci biir dootul génn kon fii wuute teg koom nan la man doxe ci fii loolu ñu bëgg wax fii fokk usul taxaw fi mais am nay tont wa ujiba awalan ana taxaluful waid wuuteeg dël la yaqulul kazib fi axbaarihi taala du dugal ay wax lu dul dëgg ci wax suñu borom wuuteeg wuuteeg la wax du dugal lu dul dëgg ci wax suñu borom fii lan la bëgg a wax liann alkarima isa axbara bilwaid yàlla mi tedd mi bu waxee ci tëkku ñu xool fa laayiqu bi karamihi an yubna axbaaruhu bihi alal machia gis nga usul din lu jafe la yàlla bu tëkkoo dana bëggal sàngam ku def sàngam ñu xool li yella ci waxu ku tedd kooku mooy wax jooju ñu teg ko ci ni bu ko soobee dina bëggal sàng ku def sàngam bu ko soobee way lam yusra biha doonte bu ko soobee jig binduñu ko ci zahir fi waxin la bu ko soobee danga noonu même ci ñu àggul ci yàlla ci wàllu karam masalan fi sa qaal karimu law adibani zaydan masalan bu nit ne am buggal danaa buggal zayd danaa buggal diw nee na fa niyatuhu lu bëgg wax yéene mooy in shi'tu bu mu sobee danaa ko buggal bu ko sobee mën naa ko bàyyi bañ ko buggal kooku mooy dël si boppam bu tukkee suñu borom tabaaraka taala ci ci melo kéeféer walla melo sàngam ñu xool ko kooku mën naa tub yëfit digal na leen mbugal mais noonu mu leen digal mbugal si jamono boobu am na ci ay yéeféer mais dew ñu ci kéeféer mbugal ma dafay dal dañ ndax melo woo taxoon mu diggal leen ko dañ na si ñoom yéen mën a dal dikk loolu moo tax nga gis ci alxuraan ñaari yéefar bu ñu tudd ci turam nga xam ne kii moom la ñu diggal mbugal dee na ci kéeféer gis nga ñu deme ne ñoom abu lahab gis nga leen mbugal ma du dañ walid bun muxira seen mbugal dañ mais ñeneen ñi nga xam ne ñooñu dégaloon dañu dégaloon nañ leen mbugal ci meloo kéeféer te tudduñu seen tur yàlla dogal ñu tuub dugg ci lislaam fii duñu nii tëkku bi leen yàlla tëkkoon dañ gu mu dañ kenn du ko tudd fen kenn du ko tuuti wax ju wuute jëf déedéet noonu moo tax usul diin fii faram ci dafa xaw dafa xaw jafe loolu moo di waxit tëkku mën naa am ci nit leen jamono ci melo jamono bu mooy def bàkkaar tëkku baa nga fa waaye bu tuubee ci saati tuub tekku ko daal dafa daal dañ loolu du wax ju wuuteeg jëf ci niñ ko mën déggee kon moom noonu sinon la ëpp ci saaba yi ñu ànd ak yonent bi saa sallam de avant ñu dugg lislaam yëfër la ñu woon ñu ngi doon tëkku yëfër waaye yàlla def na sutura ci tawfiq ñu dugg lislaam nekki jullit islaam yi jubbuma qablahu yàlla baal seen bàkkaar kon tawfiq ngoong kon tëkku ngu noonu yàlla day tëkku waaye tëkku gi yërmandeem dan ko gàllanko dana fa dox bu nit tuubee ci loolu mu tëkkoo woon sell tuubam njéggal mën na am loolu dokkul wax ju wuute jëf nekkul wax joo xam ni fen nekk na ci bi xilaafi waadi yéen wut na dell